ausu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin barakatu seyxil xadim bokki jullit yi bokki taalibe yi gannaaw ba nu sant yàlla suñu borom tabaaraka taala di julli si yonentam bu tedd bi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa di sant seyxuna Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul di wax jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridina ñu ngi ñaan ci barkab jotaay bi Cheikh Mahamadul Muntaxa yal na yàlla dolli ko fa yàggal te defal kook wér noonu lañu koy ñaanale Serigne Amdi Moustapha mi nga xam ne moo toog fi jotaay bi Cheikh la yal na yàlla dolli ko fa yàggal ma àggale ay yéeneem di ko ñaanal bépp xalif boo xam ne mbooloo ngi fi sa gannaaw nga jiital leen jëme fa suñu boroom di ñaanal suñu buntu si Cheikh Ibra muy Sëriñ Cheikh Fall borom ndigal yal na yàlla doon li ko fay yàggal te defal ko ak wér di siyaare boroom daara ji di Cheikh Sidi Cheikh Sidi Diop mam maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina noonu lañ koy siyaare moom itam di ko jox wàcc waayam di ñaan yàlla yokk ko mbokk yi dellusiwaat nañu ànd ak yéen ci jataay bii nga xam ne mooy Basir ak Nasir di jàngale njàngaleem Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mbokk mi koy ànd ak yéen di daam seen 18 safar ñu fas yéene andi leen ci njàngaleem sëriñ bi ndax ni ko baaxoo waxee saa su nekk teg nañu ci yoon woo xam ne képp koo xam ne tege nga ci danga nga am tawféexi àddina danga am am tawféexi àllaaxira te waxtu nekk mu ngi doon dénkaane moom sëriñ bi di gindee di tege ci aw yoon wa gën a jub ngir bëgg ñëpp jariñu boo demee ci téere bi ñuy wax ma naan fii jawaabi abdirahman daf ca wax ne téere la bu am solo bu mat di bàyyi xel ndax ma ngay wax naan fa xultu usiika bi taqwallaahi al asim dénkaane bi képp ku kuy ab bi rek yaa ngi ci biir mu ne ko noo ngi lay dénk ragal yàlla mu tedd mi ñoo ngi lay dénk ragal yàlla mu mag mi ndax ragal yàlla li annahu afdalu min kulli sayin ragal yàlla moo gën mépp mbir mépp mbir rek ragal yàlla ko gën ndax ragal yàlla dafa wax ne mooy ina taqwa rasu kulli hikma ragal yàlla mooy bopp bépp bépp xikma ragal yàlla mooy bopp bépp xikma waaye nee na wa jimaahu kulli xayrin wa nicma nee na ragal yàlla moo boole yiw yëpp mboolem yiiw yëpp ragal yàlla da koo boole waaye xéewal yëpp itam mi ngi daje ci ragal yàlla mu wax ne comme que nii la demee nanga xam ne fa man araada xilma fal yattaqillaaha bu fekkee ne danga bëgg a xam-xam bu leer te sell nga mën ca gindeeku gindee ci te yàlla rek tax nee na jiital ragal yàlla waa maanaam araada risqa fal yattaqillaaha bu fekkee ne danga bëgg wërsëg bu bari te barkeel nee na na nga jiital ragal yàlla waaye wa man araada najaata falyataxillaaha mu ne bu fekkee ne sax dangaa bëgg ak mucc fekkee ne danga bëgg ak mucc nee na na ragal yàlla wa man araada an yakuna akrama naas falyataxillaaha bu fekkee ne danga bëgg danga bëgg a gën a tedd ci nit ñi dangaa bëgg a bokk ci ñi gën a tedd nanga ragal yàlla ndax ragal yàlla wax na la ko léegi moo ëmb lépp yiw ak lépp li lu baax mu ne maa ngi la naan ragal yàlla rek nga ne ma luy ragal yàlla bu ma la doon naan ragal yàlla daal inna taqwa xibaaratun waxin la bu ma la ko doon tënkal dama lene xanim tisaalil awamir bind bin nawaahi ragal yàlla moom weesuwul topp ndigal yi bàyyi tere yi gis nga ragal yàlla weesuwul jëfe ndigal yépp bàyyi tere yi yépp sa camte lay kattan du caagin ne dangay naan man de damaa ragal balaa yi man de ak maa ragal balaa yi man de ni ma ni ma ragale mbugal yi yaa koy wax yaa naan dangaa ragal balaa yi yaa naan dangaa ragal mbugal yi mbugalum suñu borom yaa ko wax ne da nga koo ragal waaye yow nan nga mën a ragale loolu ba noppi maxan israar bi nee nga da ragal mbugal nee nga da ragal napp ba noppi yow yaa ngi nuur ci bàkkaar yi loolu xel nangu ko la nga ragal dangay ngay def lu tax nga mucc sa da nga koy moyandiku nee na am na ñoo xam ne dañoo dese ndox de suufaa yi am na ñoo xam ne dañoo dese nee na ñooñu seytaan da leen a wor laa tax ma wax loolu mooy nee na da gis yaqulu inni xaaifun min sulmatil qabri wa dayqihi wa asabi naar wa fitnatiha wa alamil mawti wa sakaratihi ma hal israel alal kabair maa al israar alal kabair nee na gis koo xam ne day na man de damaa ragal lëndamaayu bàmmeel dañ koy jàmbat man de ni ma ragale lëndamaayu bàmmeel man de ni ma ragale xataayu bàmmeel man de ni ma ragale sawara ay waay maa ragale mettitu de ni ma ragale sukuraat nga xam ne foo tollu danga koy jàmbat waaye yow li ngay jàmbat teewul yow yaa ngi nuur ci bàkkaar yi gën a mag bàkkaar yi gën a mag yaa ngi koy def ba noppi nag ne da ngaa ragalee ah wax dëgg yàlla du neex a lijjanti mu ne dangay gis koo xam ne bàkkaar yooyu ngay def te ragalee mooy kan nasari ila ila al ajnabiya wal kasibi wal xiiba wa kasratil fudóol di xool jàmbur bu jigéen bokk na ca di wax lu dul dëgg bokk na ca di jëw bokk na ca waaye nag bari ay caaxaan jàmbur bu jigéen bu la daganut wala ngay waxul dul dëgg te alxuraan li ma na maa laa tafxaluuna kabura maxtan hindallaahi lu tax ngeen di wax loo xam ne du ngeen ko def ak jëw jëw sa mbokkum jullit dafa araam mboolem xeeti caaxaan yépp nag mbooleem luy caaxaan ku la fa dëgg ne la masa mbooleem luy caaxaan waxtu ne yaa nga ca ba noppi nag boole kook ne dangaa ragal lii xel nangu ko waaye ne ni kii def lii fa in xulta lahu an sa haram sëriñ bi ne nit kuy def lii boo ko ne ah yow li nga def daa araam de mu ne la ah lii daal kenn mënu koo bàyyi laa yaqdiru laa yaqdiru ahad ko yatrukahu lii kenn mënu koo bàyyi ñépp a koy def naa si ana jamii na yafaluunahu dan laa ne bàyyil li ngay def nga ne ah daal du man dong xam nga wolof day naan du man dong bokk ma caa ko gën léegi yow nee nga du yow dong mu laajaat la ne la waaye bu fekkoon ne dañu dem ba ëllëg maanaam ñu pàng nit ñépp jiite nit ñëpp di leen jëmale sawar ñu ne la eh demal nga ànd ak nit ñi ña ngay dem sawara ndax da nga nangoo ànd ak ñoom la déedéet doo nangoo ànd ak ñoom kat ndax xam nga ne fan jëm jàmm ñëw fa waaye léegi kon lu tax nangoo ànd ak ñee di dem te yaa ngi di def li ñu ne la bu ko def nga ne ñëpp a koy def muy lu leer nañ kon sëriñ bi tënku si am njàngaleem daa jot sëkk sëkk sëkk sëkk ni mu jote mooy dalay tax a mucc dalay tax a gindeeku dana tax yu baree baree baree baree bari kenn du la ca mën a dugal kenn du la sa mën a yóbbaale da ngay mel ni ëkk ëkk ndax ni ma koy waxee saa su nekk la suñ may doon wax naan bul yoqi bul xaritoo ko bu yoqi kat wutulub xarit bu yiw sawar gëm yàlla bëgg lu baax ku yoqi day yàq moo tax yoqi bon nee ku yoqi ak ëkk rek lay saf du dem te ku jóg mu fël ko fasowul kenn làq lu baax jàppal si ñi gën jàpp si jëf yu baax jàppal jëf yu baax yi waaye jàppal nit ñu baax ñi bu ko defee dana la dimbale sa àddina dana la dimbale sa alaaxira nit ñu baax ñi nag bu ma la koy mooy ñu aw ci yoon wi ñu ngi ko yaakaaree ñi daal sa xel nga taqoo ak ñoom rawatina waram xam-xam yi ndax borom xam-xam yi taqoo ak ñoom am na solo lool te Yonent bi sallallahu alayhi wax ne ala adullukum dafa ni ne ala adullukum ala asrafi ahlil janna xaalu bala ya rasulallahi xaalahum xulamaawu ummati dafa wax ndax duma leen tegtal ndax duma leen wax ña gën a tedd sa aljana ñay gën a tedd sa aljana ñu ne ko ah kay yaa rasulallahi ñooñu koy bëgg na ñoo xam ñum mu ne ñooñee nga xam ne bu ëllëgee ñooy gën a tedd sa aljana ya ñoo ñooñee ñooy boroom xam-xami sama xeet wi boroom xam-xami xeet wi yi gëm yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom def ci ñoom xam-xam ñu ñu ñu koy jariñoo ba noppi di si jariñi te yàlla rek tax nee nañ bu ëllëgee ñooñu mooy gën a tedd. mu waxaat ne moom it salaa salaam daañu ne nasratun ilal haalimi ahab ilayya min hibaadati sanatin siyaamiha wa xiyaamiha nee na xool benn boroom xam-xam xool benn boroom xam-xam boo xam ne jëfe na xam-xamam borom xam-xam bu jëfe xam-xamam nag xam-xam bari na ñi ko am bari nañ waaye ñi ko jëfe moo niiw mu ne nag xool benn boroom xam-xam boo xam ne jëfe na xam-xamam nee na moo ma gënal jaamu yàlla am at moo xam ne dama koy woor di ko julli kon gis nga taqoo ak ñoom ni mu amee solo taqoo ak ñoom ni mu la mën a jariñe àddina ak ni mu la mën a jariñe alaaxira ba tax na saa bu ñu tënkoo si njàngaleem sëriñ bi la ñu bëgg dinañu ko am suñ kemt lay kàttan ndax sëñ Tuubaa damay wax saa su ne ne sëñ Tuubaa daa baax siñ tubaa day as gor sëñ tubaa daal lamboo yërmande sëñ tubaa daal lamboo xiiwal lu ne nit mën a ñàkk amaat bu am de sëñ nit mën na koo ñàkk amaat bu am de tubaa ku mel noonu ku yàlla boole ko moom mu jël temps si sa jëmm ah war ngaa góorgóorlu ci fànn yépp boo taxoog nit ñu baax ñi nag nga fexe jéem a defar sa bopp ndax da koy tàmbali si sa jëmm si sa làmmiñ ndax dafa wax ne asadu naasi asaaban yowmal xiyaam salaasa sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ëllëgee yowmal xiyaam gën a tar mbugal gën a tar am mbugal ëllëg yowmal ñett lañu mooy xaalimun lam yanfaxu llahu bi ilmihi wa muksirul xawli fil baatil xaqu waalidayni nee na ñett ñii bu ëllëgee ñooy gën a tar mbugal nga ne ko kan mu ne borom xam-xam boo xamante ni bii jëriñul yàlla ci xam-xamam bi jëriñul ci xam-xamam bi ak ku bare wax ci ay neen koo xam ne foo ko fekk ma ngay wax te la muy wax dara amu si njariñ amalu ko njariñ amalu nit ñi njariñ te du ubbi làmmiñam mukk waaye nag ak koo xam ne daa dog ñaari way juróom ku dog ñaari way juram ah wan gannaaw nee na ku bëgg a gis ku borom mbugal mu tar xoolal kooko dafa wax ne eh, Seydina Omar radiallahu anhu xalifatu saani dafa wax ne dafa am boo xam ne moom Seydina Omar aw waxambaane da ko romb mu ne ko yaa saabu isaa wuqita sarra salaasin faqad wuqita asarra kulluhu bu fekkee ne fegal nan la ñetti ay yii mooy boo xam ne mucc nga ci ay yëpp bu fekkee ne fegal nga sa bopp ñetti ay yii feg mucc nga ci ay yëpp ay lisaan naka ay bat naka ay farjaka mu nag boo fexe ba sa làmmiñ nga mucc ci mucc nga ci ay yëpp boo fexee ba ca biir bii doo ci def lu araam mucc nga ci ay yëpp boo fexee ba sa pay mii doo si njaaloo mucc nga ci ay yëpp loolu say Omar wax na ko waxambaane woo xam ne euh, da da da kaa romb li tax wax loolu mooy dafa wax ne waxaala Malik man xadda kalaamuhu min amalihi axalahu neen imam malik dafa wax ne képp koo xamante ni bii say wax yaa ngi koy limaale si say jëf danga ko wàññi danga wàññi say wax képp koo xam ne sa wax yaa ngi koy limaale si say jëf mu leer la ne baat boo wax ci àddina bu ëllëgee suñu borom dana la taajaat nga waxaat baat booba nee na kuy bàyyi xel loolu yow danga nga néewal say wax nee na bu ëllëgee képp ku ngeen gis ñu soob ko sa biir sawara wa sawara wa di jaar ci bakkan yi di génne ci nopp yi gémmiñ gi na ngeen xam ne làmmiñam moo ko ko teg kon loolu di lu mat a bàyyi xel bu fekkee ne nee na bëgg ngaa mucc ci gàkk gàkki làmmeñ bu fekkee ne da nga bëgg mucc ci gàkk gàkki làmmeñ danga nga bëgg saw làmmiñ di wax lu baax te xam na ki nee na fal yuksir min xiraati sóoriti naasi wa sóoritil balad del faril di jàng sóoritu naasi lu bari wa sóoritul xadri ak sóoritul xadri sóoritul xadri la kon muy lu am solo nga xam ne sëriñ bi dundam gépp mooy tege ci aw yoon ak teg nañu ci aw yoon mu ne yaay xol muriidu yow taalibe bi ahbib li kulli muminin maa tuhibbu li nafsika tudxilul janna bi xayri xisaabin sëñ bi nee na yow jullit bi wala yow taalibe bi na nga sopp képp ku gëm yàlla na bëgg képp ku gëm yàlla ni nga bëgge sa bopp ni nga bëgge sa bopp nanga ko bëgg képp ku gëm yàlla nee ah loolu de boo ko defee tudxilul janna bila xisaab danga tàbbi aljana kenn du la xisaab ñi nga bëggee sa bopp rek dëgg ko ñëpp mu ne wa akrimi dayfa na nga teral sa gan yow taalibe bi maa ngi lay dénk gan koo am teral ko man kaana yuminu billahi fan yawmil aaxir fal yukrim dayfahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ni bii gëm nga yàlla gëm bis bi teral sa gan sëriñ bi ne waa akrim bi day fa na nga teral sa gan mu ne wa in kaana faa sax nag doon te gan gi sax daa doon ko saay saay lu mu yées yées teral ko lu am solo la teral gan mu ne nag bul fàtte wa lii li waalidayka wax da kulli farida saa boo jullee farata na nga sa ñaari waajur mu ne wala tax sub ahad minal moom da danga fexe ba jullit ñi bul iñaane kenn lu waaye lu yàlla dogal ci nit ki na la neex lu yàlla may nit ki na la neex lu yàlla jox nit ki na la neex lu nit ki am yéene ko ko xam na sa wàll gi ñëw waaye boo iñaanee dangay ngay sonn ndax yàllaa ko dogal ci moom te lu yàlla dogal mu naqari la foofu la maanaam coono yem moo tax mu ne kenn ku ne na nga koy ndax boo gisee ma ne la bul iñaan mooy fay na la asooda laa yasoodu ab iñaan ab iñaan kot moom du sang mukk ku iñaan du sang mukk du doonu sang mukk mu ne bu fekkee ne wa in salamaka ahad mina naasi faafu anhu bu la nit tooñee itam na nga ko jéggal ndax kat am na feneen fu wax ne sëñ Tuubaa ñu ne kuy tooñ ju mucc waaye kuy fay du noppalu kon ku la tooñ jéggal ko roye ko ko roye ko ko moom sëñ Tuubaa ndax dégg nga la ma wax hafawtu anil ahdaay turan ñoom ñëpp bàyyiwul kenn waaye rek li wajhi man nafahum li xayri sarmadan lasu adfaaw naa ñëpp toppatuma kenn lenn da waaye boo bëggee ku la tooñ nga geesu fayu kee bu tooñee fee nga geesu fay day dem ba yow sëg dund fayantoo lay doon te kon da lay tardeel moo tax mu ne ku la jéggal ko mu ne yaa ayyuhal muridu yaa ayyuhal muridu man kaana fawqaha fawqaka fa akrimhu wa bajjinhu bi sëriñ bi nee képp koo xamante ne bii maanaam moo la mag teral na nga ko màggal bul bokk mukk ci ndaw ñi nga xam ne du ñu respecté mag bul bokk mukk si ndaw ñi nga xam ne du ñu faale mag bul bokk mukk si ndaw ñi nga xam ne dañuy gëdd mag bul bokk mukk si ndaw ñi nga xamante ni bii fu ñu jëflantee ak mag ñu jëppi leen moo tax mu ne képp koo xamante ni bii kawe na la maanaam ëpp na la ay at sëriñ bi nee na na nga ko teral waaye na nga ko màggal képp koo xamante ni bii maanaam yaa ko mag nee na na nga ko yërëm li nga xamante ne bii noonee la ko ay way juram yërëmi nga maanaam nga ñeewante ko daa ñu ne képp koo xamante ne bii nag yéen ñaar yéen a yem nga def ko ni ca bopp kon lii ku ko dund da am dund gu tawféexee ku la mag weg ko koo mag yërëm ko ki nga maaseel nga def ko ni sa bopp daa ñu ne ansa axirul wasiya sëriñ bi nee ne lii mooy mujjug dénkaane bi nee na fay ni istaxmalta bi xanaa tanju fi daari ni sëriñ bi nee na lii ma leen wax bu ngeen ko jëfee da ngeen mucc àddina dangeen mucc alaxira da ngeen mucc àddina da ngeen mucc alaxira daa ji ne watanan jamia ma tatlubu fi dunia wal axira nee na te àddina lu ngeen di sàkku di ngeen ko am alaxira lu ngeen bëgg di ngeen ko am kon loolu dénkaane la boo xam ne ma nga nekk ci fathul manaan fii jawaabi Abdirahman sàkk woon ko ci sëriñ bi mu dénk ko waaye boole ci mbooleem taalibe yi yal na yàlla dolli leeni leer barakatu Seyxul Xadiim yal na yàlla defal ñu dégg ak topp lépp loo xam ne jub na ci kàddu yi ñu ngi koy sant naa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waaye lépp loo xam ne dëgg na si jëmm ji nga xam ne mooy yëkkati kàddu yi ci mooma wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu أنت ربي وكنتني بودادي فكسوني لجاهي